الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokki auditeurs yi fii ci sunu émission kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall maa leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu boroom ci darajay jëmm ju sell ji di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ndaxte moo ñu may wérgu yaram ba ñu tal ko ba toog fii mën a ubbi téere bu sell bi ñu yàlla sunu borom jox muy biibal bi ngir taataan ci jàng ci mu doon yokkute ci ñun ñi koy wax ak ñi koy déglu ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu mbokk yi yeewoo fii ci biir Sénégal bépp jëmm ju yeewoo fii ci biir Sénégal maa ngi lay nuyu di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñi ngi nekk bitim réew di ñaan yàlla sunu boroom ci darajay Yeesu Kirist kàddu yi di fi jube yàlla na doon kàddu yoo xam ne ci xel mu xel mu sell mi lay jóge kàddu yi nag dañ ko lal ni ma ko waxee sànq ci téere bu sell bi lépp luñ fiy wax nag du ci sunu coobare wante du dara lu dul ubbi téere bu sell bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox ngir jàngal ñu ñu jàng ci te di ñaan xel mu sell mi mu leeralal ñu ko ba pare bind ko ci sunuy xol ngir mu doon loo xam ne danañ ko jëfee saa su nekk dama leen jàngaloon fii saar yu am solo mu nekk ci kóllëre gu bees gi ci ñaareelu bataaxal ba ñu jagleel Timote ci aaya ñett saar fukk ak juróom benn ba saar fukk ak juróom ñaar duma tàyyi nag di leen fàttali saar yu am solo yooyu nga xam ne yàlla sunu boroom wax nañu ko mu jëm ci kàddoom gu sell gi mu ne ñu kàddu yépp ci moom la jóge ci gémmiñam la jóge te daf ñu ko jox ngir jàngal ñu ngir yedd ñu ngir jubbante ñu ngir yee ñu ba nga xam ne danaan baax danaan mat ci bépp jëf ju baax moo tax yenn saa yi ñu jàng yoo xam ne ci téere bu sell bi dañuy am jaaxle ne aji sax ji naka la mën a bàyyee yu mel noonu nekk ci kàddoom naka la ñu mën a waxee yu mel noonu ci kàddoom wante dafa fekk ne yàlla dana jël lu nekk ngir jàngal jaamam yi ñu doon dana jël ku baax jàngal ñu ci jël ku jubadi jàngal ñu ci dana jël lu yàqu sax jàngal ñu ci ndaxte yàlla sunu boroom mooy ki nga xam ne mën na jël lu nekk jàngal ci ay jaamam ba jaam yi xam mooy kan xam fan lañu war a teg tànk seeni tànk tey jii nag dañuy ubbi ci kóllëre gu njëkk gi waxtaan ci benn góorug yàlla gu ñuy wax yanqooba yanqooba nag boo déggee ci nasaraan moom la ñuy wax Jacob mooy ki nga xam ne ci moom la yàlla sunu boroom jaar ba sos fukki xeet ak ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo sos bani Israël yàlla sunu boroom di ñu jàngal ci jaar-jaaru waajoo ji nga xam ne mooy yanqooba te bu ñu jàngee ci njalbeen ci kóllëre gu njëkk ga ca xaaj ba ñu dippee njalbeen bu ñu jàngee ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jàng ci saar fukk ak juróom ñett ba saar ñaar fukk ak ñaar lii lañu yàlla sunu boroom di wax indil ñu loo xam ne xewoon na ci dundu yankooba lu bari nag xew na wala boog xewoon na ci dundu waa jooju wante ñu seppi ci biir rek xool li nga xam ne moom la ñuy yàlla sunu boroom di ñu jàngal kon ñu jàng ci njalbeen ga ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett ci saar fukk ak juróom ñett ba ñaar fukk ak ñaar yàlla sunu boroom di ñu wax ne ca suba teel yankoo ba jóg balaa boobu sax ma leeraleen ne saar yi nga xam ne ñoo ñëw balaa boobu dañu doon nettali ab tukki goo xam ne yankoo ba da ko doon def yàlla sunu boroom ne ca suba teel yankoo ba jóg jël doj wi mu geño woon samp fa muy xàmmeekaay ba noppi sotti ci ak diw sellal ko te la tuddee bërëb ba betel waaye ca njalbeen luus la dëkk ba tuddoon gannaaw loolu yanqoo ba dogu ne su yàlla àndee ak man di ma sàmm ci yoon wi may aw di ma jox lu ma lekk ak lu ma sol ba keroog may dellu sama kër bàyyi ci jàmm su boobaa aji sax ji dina doon sama yàlla loolu la yankooba dogu wala boog sartoo ko digganteem ak yàlla ñu ne dafa wax ne su yàlla àndee ak man di ma sàmm ci yoon wi ma aw di ma jox lu ma lekk ak lu ma sol ba keroog may dellu sama kër bàyyi ci jàmm su boobaa aji sax ji dina doon sama yàlla yanqooba mooy waajoo yi nga xam ne moo juddoo ci diggante isak ak rebeka maamam di ibrahima ba mu juddoo daanaka mën nañu wax ne ab seex la wala boog amoon na ku ñëkkoon a juddu muy esawu moom jacob topp ci yàlla sunu boroom di ñu wax ne yanqooba boobu dafa nekkoon waajoo xam ne waajuram wu jigéen di rebeka da ko bëggoon wante magam bu góor ba nga xam ne mooy esawu baayam isak da ko bëggoon ndaxte esawu moomu ab rëbbkat la te daan dem ci àll bi di indi yàpp gu duuf di ko jox waajuram wu góor mu neexoon ko torop yanqooba nag nekkoon koo xam ne da daan nekk ci kër gi nekkoon waaju dal daan xalaat lu bari da daan bàyyi xelam ci lu bari wante téere bu sell bi dañuy wax ne yanqooba moomu nekkoon na waa ji nga xam ne li mu daan toog ci kër gi wala boog li mu daan toog ci xayma yi moo ëppoon lu mu daan génn ci biti yanqooba mooy ki nga xam ne itam moo waxoon ak magam bu góor ne ko jaay ma li ñu tuddee woon wàllub taaw ndaxte jamono yooyu yàlla sunu boroom dafa mayoon waajur yi ne leen boo leen demee ba nekk mag am na ñaan goo xam ne mën ngeen ko ñaanal taaw seen taaw bu boobaa danaa leen ko nangul ñaan googu nag dañ mag ñi dañ ko daan def wala waajur yi dañ ko daan def bu ñu demee ba yëg ne kat ñoom ñi ngi bëgg a génn àdduna ñu woo seen taaw mu sujjoot ci seen kanam ñu teg seen loxo ci kawam ñaanal ko ñaan goo xam ne yàlla sunu boroom da koy nangu ñuy wax ne bés isaawu dafa jóge ci àll bi rëbbi woon mu sooy amul dara ba mu ñëwee fekk yanqooba mi ngi doon togg mu ne ko may ma ci togg gi ma lekk yanqooba ne ko danaa la jox nga lekk bu dee sa cëru taaw boobu jagleel nga ma ko isaawu ne ko nangu naa jox naa la ko jox ma ma lekk noonu la def ba nga xam ne baayam isak ba mu demee ba bët yi neexatul ba mu yëg ne fan yi ko dese bareetul ca la woo isaawu ne ko danaa la ñaanal ñaan googu nga xam ne mooy cëru taaw wante ca mujj ga yanqooba moo jot ñaan gi yàlla nag di ñu wax ne yanqooba moomu moo nekkoon ci biir àll bi yàlla feeñu ko ci ab gént wala boog janeer mu leer naññ ba mu jógee ci loolu nag yankooba dogu sartog yàlla am loo xam ne wax na ko ma bamtu ko waat ci njalbeen ga ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett ci saar fukk ak juróom ñett ba saar ñaar fukk ak ñaar mu ne su yàlla àndee ak man di ma sàmm ci yoon wii may aw di ma jox lu ma lekk ak lu ma sol ba keroog may dellu sama kër baay ci jàmm su boobaa aji sax ji dina doon sama yàlla yanqooba sartoog yàlla tënk ko ci yi nga xam ne mooy lekk ak naan mooy col mooy jàmm yàlla sàmm ko mu ne su yàlla àndee ak man di ma sàmm ci yoon wii may aw di ma jox lu ma lekk ak lu ma sol ba keroog may dellu ci sama kër baay ci jàmm bu boobaa aji sax ji dina doon sama yàlla yàlla ànd ak man sàmm ma may lekk ak naan di solu te am jàmm bu boobaa danaa jël sama xol sama jëmm ji ma jébbal ko aji sax ji mu doon sama yàlla loolu mooy li nga xam ne moom la yankooba sartoog yàlla te booy xool jaar-jaaru yankooba loolu nga xam ne waxoon na ko dogu ne bu ko gisee ci dundam dana jébbal jëmmam jooju yàlla yàlla dana ko ko defal ba mu mat sëkk dana ko ko jox ndax dana ko sàmm ba magam bu góor ba jógee ne day dal ci kawam yàlla may na ko xalaat ak pexe boo xam ne ba mu ko defee mag ja dafa ñëw ànd ak moom jooy nammanteeg moom ne ko sama rakk ñu tàqali ko ci jàmm te fekk na yankoo ba tiitoon na ndaxte yaakaaroon na ne magam jooju dana ñëw fayontoog moom ngir cëru taaw goog nga xam ne jëloon na ko ci moom déedéet yàlla sàmm ko ba jàmm dox seen diggante yàlla itam may yankooba lu bari may ko alal gu bari may ko jur gu bari may ko itam ay doom yu bari ba pare nag ne ko yow yankooba bii nga tudd dama koy soppi defal ko nga tudd Israël Israël nag di tekki yàlla ëpp doole wala yàlla am ndam yàlla ne ko damay soppi sa tur bi nga xam ne mooy yankooba léegi nga tudd Israël coppite boobu nag yàlla sunu borom indi woon ci tur gi da doon màndargaal li nga xam ne moom la yàlla namoon ci jëmm jooju ak ñi nga xam ne danan soqe ko ci moom yàlla ëpp doole wala boog yàlla am ndam wante bu ñu delluwaatee ci loolu nga xam ne sartoo na ko woon ak yàlla dañuy gis ne ñun ñi nga xam ne ñooy jaam yi mën nañ ci jàng lu bari ba sunu digganteeg yàlla sunu boroom ratax ba fii ci kaw suuf bi ñu nekk ñu mën fi nekk nekkin goo xam ne dana neex yàlla sunu boroom te nekkin googu wala boog diggante googoog yàlla sunu boroom duñ ko lal ci li ñuy am fii ci kaw suuf wante dañ koy lal ci ngëm dañ koy lal ci jeex takk ci yàlla sunu boroom ak déggal ko ak ragal ko ndaxte yankoo baa ngi lim li nga xam ne bu ko gisee bu boobaa dana dogu déggal yàlla aji sax ji jàpp ne moom mooy yàlla jox ma ma lekk ba suur jox ma ma solu sàmm ma may ma jàmm ba ma dellu sama kër bàyyi bu boobaa mankat danaa dogu ne aji sax ji mooy sama yàlla yàlla ne ko baax na danaa la ko jox wante am na loo xam ne mi ngi ñu koy jàngal ci xew-xew boobu nga xam ne xew na ci dundu yankooba wala boog xew na ci dundu Israël kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaanu tey wi nga xam ne ñu ngi koy lal ci dundu góorug yàlla googu ñu naan yankooba te yàlla mujj ko tuddee Israël ndax li mu namoon ci dundam ak li mu namoon ci askan bi nga xam ne dana soqeekoo ci moom yankooba kon ñu déglu tuuti cant mbokki auditeurs yi ah
kon mbokki auditeurs yi loolu mooy li nga xam ne yankooba sartoo na ko woon ak yàlla yàlla def wàllam ba mu mat sëkk wante yàlla sunu borom diñu jàngal foofu loo xam ne lu am solo la mooy jaamam yi nga xam ne dañu jël seen digganteeg aji sax ji lal ko ci li nga xam ne mën nañu jot mën nañ ko jot ci moom fii ci kaw suuf maanaam bu yàlla barkelee seen dund ñu tudd ko wante bu ñu nekkee ci jafe-jafe ñu dummooyu yàlla ñi nga xam ne seen digganteeg yàlla sunu boroom dañ ko lal rek ti di jot di jot di jot ci yàlla yàlla di leen fajal seeni soxla di leen fajal seen aajo bu boobaa ñu wone taxawaayu ku gëm yàlla wante bu ñu toogee ba nga xam ne seen aajo yi fii ci kaw suuf fajuwul ñu tàmbali di dummooyu yàlla di wuti yeneen pexe ngir faj aajo yooyu mu demee ni kii am lu doy fii ci kaw suuf di lekk di naan ba suur di sol lu rafet di am jàmm di am itam ndombal tànk wala yu demee noonu ñi nga xam ne yaakaar nañu ne diggan seen digganteeg yàlla looloo ko lal bu ñu gisee yu mel noonu ñu ne gëm nañu wante bu ñu demee ba toll ci tolof-tolof ñu tàmbali di weddi weddi goo xam ne dañ koy wone ci kaw seen jëf ndaxte dañuy tàmbali du dugg ci yoo xam ne yàlla sunu boroom bëgg ko moo tax yankooba ne yàlla sama digganteeg yow kat lii ma sartoog yow mooy jox ma lii jox ma lii jox ma lële bu boobaa danga doon aji sax ji dana doon sama yàlla yàlla ne ko danaa la ko jox jox ko ko ba mu mat sëkk wante am na jaam yoo xam ne seen digganteeg yàlla laluñu ko ci yu mel noonu am na ñoo xam ne yàlla rek a tax seetuñu ci lu ñuy am seetuñu ci lu ñuy ñàkk gëm nañu déggal nañu ragal nañu yàlla te ñi ngi dund dund goo xam ne noonu la ko yàlla sunu boroom bëggee yàlla sunu boroom nag di ñu jox ay firnde yu leer ci biir kàddoom di ñu jox ay jaamam yoo xam ne royukaay lañu moo tax bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees gi xaaj bi ñu jagleel yawut ci aaya yi fukk ak benn ba aaya fukk ak ñaar ba dugg aaya fukk ak ñett yàlla sunu boroom mi ngi wax ak ñun foofu di wax ak jaamam yooyu nga xam ne nee na ay doxandéem lañu woon nit ñu tum ranke lañu woon nee na ñooñu amuñu woon dara yàlla di ñu leeral nee na ñenn ci ñoom lu ñu woddoo sax amuñu ko ba deru mala yi lañ daan jël di ko def yére di ko sol yàlla sunu boroom naan ñu ay doxandéem lañu woon ñooñu bokk ci ñi nga xam ne yàlla naw na leen ba jël leen tey jii joxe leen ñuy ay royukaay yàlla sunu boroom di wax ne ñenn ñi dañ leen faat ci anam yu metti yàlla nee na ñenn ñi dund nañu ba génn àdduna liñ leen digoon gisuñu ko wante teewul seen gëm di gën a dëgër ñuy gën a takku di gën a jeex ci aji sax ji yàlla jël jaamam yu mel noonu joxe leen ngir ñuy royukaay yàlla sunu boroom yokk ci ne jaamam yooyu nga xam ne taxaw nañu taxawaay bu mel noonu ci kaw suuf te wone nañu gëm goo xam ne laluñu ko ci li leen yàlla di jox li ñu mën a am déedéet dañ ko lal ci kaw bëgg yàlla déggal yàlla ragal yàlla képp ñu am gëm ñu ñàkk gëm yàlla di ñu wax ci yawut ci aaya fukk ak benn ci saar fukk ak juróom benn nee na waaye ñi ngi doon séntu réew mu gën maanaam mi nekk ci asamaan looloo tax yàlla rusul ñu koy woowee seen yàlla ndaxte defaral na leen ab dëkk yàlla sunu boroom jël jëmm yooyu bu ñu jàngee ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu bees gi ci xaaj bi ñu jagleel yahud mu lim leen mu lim ci ibrahima mu lim ci ñu bari mu lim ci yuusufa mu lim ci musa mu lim ci ñu bari ñu bari ne nag jëmm yooyu moom yàlla rusul ñu koy woowee yàlla ndax dund gi ñu dund fii ci kaw suuf ak jeex bi ñu jeexoon ci yàlla aji sax ji neewuñu ne yàlla boo ñu joxee lekk ak naan ba mu doy boo ñu joxee ñu solu coloon colu gu rafet boo ñu mayee jàmm boo ñu mayee tur bu boobaa ñu gëm la déedéet ñooñu koy yàlla nekkoon ci seen xol te amul dara loo xam ne mënoon na ñëw ëlëm leen ba génne ci ñoom gëm-gëm gu dëgër googu nekkoon ci ñoom wante yàlla sunu boroom dañuy fàttali ne jëmm yooyu buñ doon xool tey jii dañ leen di jàppee ay walaakaana dañ leen di jàppee ñu tekkeewul dara dañ leen di jàppee ñoo xam ne amuñu tur yàlla ne déedéet sama jaam yooyu nga xam ne sama digganteeg ñoom laluñu ko woon ci lu ñu mën a am lu ñu mën a jot ci man wante ñi ngi ko laloon rek ci gëm ci cofeel bi ñu am ci man ak ragal bi ñu am ci man yàlla ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne man maa ngi leen di sargal maa ngi leen di woy maa ngi leen di tudd te bind naa leen ci sama téere bu sell bi ngir ñu doon ay royukaay bi bani Israël nekkee ci àll bi yàlla sunu boroom génne leen ci loxo Firawna dañ daan ñaxtu saa su nekk bu ñu toogee ba amuñu lu ñu lekk ñu ñaxtu ci kanamu Musaa bu ñu toogee ba amuñu lu ñu naan ñu ñaxtu ba naan sax waaw dañuy dellu misira ndaxte misira kat daan nañ fa lekk ba suur daan nañ fa naan ba suur yàlla sunu boroom di def ay kéemaani kéemaan di leen jox ñuy lekk di wàccee ci kaw asamaan yàpp di wàccee ci kaw asamaan mburu di génnee ndox ci ab doj ñuy lekk ba suur di naan ba màndi wante du tee dañ daan ñaxtu bari na ay jaam yi nga xam ne ñi ngi ñaxtu yàlla sunu boroom ne xool leen ci sama jaam yi nga xam ne maa ngi leen di tudd def leen royukaay yëkkati leen ba tey jii seen tur nekk ci sama téere bu sell bi moonte de ay doxandéem lañu woon ñu ñàkkoon lañu yàlla ne xool leen ayub feebar moo ko dal bu metti mu wopp ba nga xam ne soxnaam ñëw na ne ko kat moolul yàlla te nga génn àdduna mu ne ay la yéwén duma ko def damay wéy di gëm damay wéy di ragal yàlla ndaxte yàlla rek a nekk te man ab jaamam laa yàlla sunu boroom di ñu wax ne ba mbooloo ma toppee Yeesu Kirist fekk fan ya ca ginnaaw dafa defoon ab kéemaan jox leen ñu lekk ba suur bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees gi ci Yohana ci aaya juróom benn saar ñaar fukk ak juróom benn daf na leen ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax yéen a ngi may wër ndax mburu mi ma leen jox ngeen lekk ba suur wante topp leen ma ndax da ngeen ma gëm wante dama leen jox ma ngeen lekk ba suur mu yomb ci yéen moo tax ngeen may wër fu nekk mu ne leen nag bu leen liggéeyal ngir li nga xam ne day jeex wante liggéey leen ngir xa li nga xam ne day nekk ba faw moo tax Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax ne boo nekkee fii ci àdduna na nga bàyyi xel di liggéey ngir ëllëg nee na na ngay dajale ngir ëllëg maanaam nekkalal yàlla ragalal yàlla dundal dund goo xam ne moom la yàlla sunu boroom bëgg ñu toll jamono joo xam ne nag kenn nangootul tumuranke kenn nangootul sonn kenn nangootul rafle bu la yooyu tàmbalee di dal rek ngay tàmbali di sori yàlla mi nga xam ne moo la sàkk jox la bakkan def ci yow ruu da nga xam ne mën na la may lu nekk boo tàmbalee sonn boo tàmbalee rafle boo tàmbalee tumuranke rek nga tàmbali di dëddu ki nga xam ne yàgg-yàgg da nga taxaw ci kanamam te boo taxawee ci kanam li lay xaar ci kanam mooy li amul app di dul jeex ba faw yankoo ba ne yàlla sunu borom jox ma lii jox ma lale bu boobaa ma dogu ànd ak yow yàlla nañu ñun ay jaamam sama digganteeg yéen bu leen ko lal ci lekk bu leen ko lal ci naan bu leen ko lal ci coleen wante na ngeen ko lal ci bëgg ma ci ragal ma ci yaakaar ma bu boobaa danaa leen boole ci góorug yàlla yooyu nga xam ne dama leen di lim te maa ngi leen di joxe ñuy ay royukaay yàlla sunu borom nan jox ñu lu mel noonu ngir jàngal ñu indil ñu dundu jëmm jooju nga xam ne mooy yanqooba ñu koy wax Israël yàlla sunu borom barkeel dundam mu dem ba nga xam ne bani Israël génn na ci moom yàlla sunu borom wéy di leen barkeel ba jamono yi ñu nekk te dana wéy di leen barkeel ba faaw wante yàlla sunu borom di ñuy fàttali ne ki nga xam ne moo barkeel mooy ki nga xam ne bu lekkee bu lekkul bu naanee bu naanul mi ngi wéy di gëm di jàpp ci yàlla di jeex tàkk ci aji sax ji moo tax yàlla sunu borom di ñu wax ne jaamam yi mel noonu moom du rus ñu koy tudd du rus ñu koy tudd wante yàlla mi ngi leen di ndamoo jaamam yooyu te mi ngi leen di jël di leen joxe ñuy ay royukaay jamono nag métti wante métit bu la jàppee métitu jamono bu la jàppee ba nga dëddu yàlla ba nga dummóoyu yàlla bu boobaa jàppal ne kon lajj nga wante bu dee da nga jël itam sa digganteeg yàlla sunu borom aji sax ji nga xam ne yàgg-yàgg da nga jàkkaarloog moom nga jëgg jël diggante boobu lal ko ci ay xéewal yoo xam ne day jóge ci moom lal ko ci li nga xam ne da nga am ci moom wala boog ngay natt sa gëm ci li nga xam ne am nga ko fii ci kaw suuf muy loo fi bàyyi ëllëg bu boobaa yàlla mi ngi lay tëkku yàlla mi ngi lay tëkku wante jaamam ji nga xam ne donte tumu rànke na mi ngi wéy di gëm kooku yàlla mi ngi lay sa sargal yàlla mi ngi lay tudd te bés dana la dugal ci bërëb bu sell boobu nga xam ne moom lay jagleel ñi ko déggaloon ñi ko ragaloon ñi ko nekkaloon kon mbokki auditeurs yi ñi yemale fii waxtaanu tey wi di sant yàlla sunu boroom ci jëmmi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ sunu yaakaaru tey sunu yaakaaru ëllëg seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi wasalaam mbokki auditeurs yi
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35 القوم اليوم